nit ñi liñ doon joxe di xaar taal bi mu ñëw ci mbedd mi nga jox ko ko nga jox ko sëriñ daara bi mu dundale ko daara ja mu dundale ko taal bi ci biir daara ja euh, euh, loolu itam prétexte la pour que ñu sant waa Koki village bi yëpp ak li ko wër ci ñoom itam ni ñu participer ci prise en yi parce que dañuy parrainer élèves yu bare bëree bëri dañu am ay parrain ci dëkk bi ak dëkk yi ko wër beneen question dana posé ma ne école bu toll noonu ak liggéey bi mu liggéey ci biir réew mi ak reconnaissance bi nga xam ne moom la am sur le plan national et sous-régional lan la ci état taxawee waaw état bi dëgg la am na lu mu ciy def euh, bien que bu sañoon mu yokk loxoom depuis jamonoy Abdou Diouf euh, affecté nañ fa benn infirmier pour que walu wergu yaram gi mu ah, Abdou ministre de l'éducation à l'époque de euh, professeur ibader quelques enseignants ah, ci jamonoy récemment ren ji recevoir nañ bâtiment bu coûté 139 euh, millions millions ci euh, programme modernisation des dars. Euh, li ñu séntu ci ñoom dañ ay participation personnelle président ministère yi bu ñu leen bindee ñaanal leen ndimbal surtout ci journée bi danañ apporter seen ndimbal ministère de la euh, santé et l'Action sociale action sociale danañ jox benn subvention buy tourner environ 2 millions par an mais à part là vraiment subvention boo xam ne bi bu officiel buy jógee ci état amaguñu ko mak ñoo ngi koy bëgg di ko sàkku jamono ju nekk surtout ci wàllu euh, dotation ci alimentation boo xam bi bu am solo lay doon jàppale ci personnel enseignant bi et puis énergie solaire énergie solaire bi parce que facture bi fay yu autour de 2 millions à 3 millions pour facture d'électricité bi forage bi la ak euh, li ñu niitoo yëpp ci biir daara ji ak li ñu jëfandikoo euh, donc lu lépp moo tax nag ñu ne charge bu mel nii li ko mën a yëngal lépp te journaliste yi ñu am ci rôle bu rëy rëy mooy yëgal ko jullit ñi xamal leen ko xamal leen école boobu daara jooju ak liggéey bi muy liggéey ak njariñ mi mu am ci réew mi ndax itam mm, li ci ëpp bu ñu waxee njariñu réew nit ñi impact économique lañ njëkk séentu ci école ci école ci daara waaye bu ñu xooloon rek ci ancien daara yi ñi nga xam ne ñi ngi yëngutu ci wàllu wàllu koom dañuy xam ne itam daara formé wul nit ki rek pour mu nekk jaamukatu yàlla bu bokk ci ab koñ parce que liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla ci yaru daara ci la bokk euh, liggéey boobu yëpp nekk li ko mën a tox mu dox ci daara kokki ak yeneen daara yu mel ni moom mooy ñu fexe ba créer benn effort national boo xam ne nit ñi dañuy mobiliser ay fonds dimbale daaray kokki ak daara yu mel ni pour que nit ñi njàngum diine mi ñu mën cee yar xale yi ci anam bu mucc ayib ñu bañ a nekk ci mbedd yi di taxawaalu heure yi ñu war a jàngee ñu koy yalwaan ah, di def yeneen mbir yoo xam ne yi dëppoowut ak ah, éducation islamique waaye dëppoowut ak aussi li nga xam ne monde actuel moom la ñu séentu ci xale ak nañ ko war a yore.